bikum dëkk bu tàkk lakk dëkk dëkk bu xam fitna dëkk bu ñàkkante xeex jàppante bu métti diggante ay mool ak takk der yi moo xam démb ca diwaanu ndar ba tax vox populi na talaatay safara moo xam ca get ndar démb la quotidien yéen kaay na ko foo ko natt weesu na ko fitna safara sa jolli ca dëkk ba laas yéen kaay ne ndar kay démb la fa xam fa jéggi dayo garaaw l'observateur na ko man intifaada laa ko tuddee wal fa yéen kaay ne mool yu mer mool yu fippu wana wane seen naqar ànd ak askan wa wàcc ca mbedd ma lu ñu romb toj lu ñu romb taxal lii de moo xam ndar démb les éco yéen kaay ne bilan ba yéey yéey garaaw na de ndax daluwaayu Senelec ba fañ koo xe tojate ko ba mokk ñu nappaaje ko jàll ca daluwaayu ONVS ba foofu moom fañ koo taxal ñu ne déete waayati moo li taxal nañ fa ñaari xoto ba pare gaañ fa fanweeru policier ay waaye ñoom tamit ñu bëri ca ñoom takk daree teg nañ leen loxo turbine yéen kaay ne xam na tamit ñaari gaal yu fa tàkk ba jeex les éco na ko fa xam seen pegg moo tàkk kalaate jàll ca gaal ya le quotidien yéen a kaay na may leen ma ma wax leen lan moo tax mool ya mer ca diwaanu ndar ba jaxase démb dëkk ba ayaw ah, seet gàttal réew Mauritanie fële na dimbale may leen ñeenti téeméeru licence ngir ñu dem seen géej ga nappi jën kilifay réewum Sénégal waroon leen koo jox benn fan ci weeru janvier ba léegi mool yi gisuñ dara buñ demee ñu naan leen tey suba gannaaw suba xaar lii dafa am lu ñuy def lii naa mool ne gis ñu ñu daal fañ ñuy faxantoo nañ ñu jox yi l'observateur dëggal ko le quotidien na ko nee nañ tamit ñoom mool réew Mauritanie ñuy garder seen géej di sonal di leen fitnaal loolu tamit fa ñoo def moom moom la adduna bi yëpp di wax ci ñaawteef ak garaaw gum garaaw laneen lu garaaw lu am Senelec mooy contrat bu ñu signé ak société bi ñuy wax Akile 11 février 2019 Dakar Times na contrat du ko gën a bon ndax Senelec moo ca perte réewum Sénégal ñoo ci pert xala ju du xaj du jeex yéen a kaay bi man damaa xamut Mouhamadou Makhtar Cissé ana lan moo ko jàppoon ba muy dem di signé contrat bi ni mel scandale tooxi doon a dëgg mooy lii nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañu ja mooy ne askanu réewum Sénégal xam nañu trop lu leen naqari ndax mbiru Aliou Sall yi pétrole ak gaz bi ci Sénégal waa BBC yi tuumal ko ne fa sàcc xalalu réew mi ay milliards am na ko ci Aliou Sall génn weddi tuuma ya waat ci alquran procureur kilifa yi wàllu xatte commencé di oo ay nit ñuy témoin ku nekk naan Aliou def lii kii naan deful laa critique yi ne kaay na léegi nag yëf yëpp fi mujj mooy léeboon luppeen Aliou Sall ngi ni kenn defu ko dara am na sax ñu ko sanga ba mu set ne deful dara fañ koo tuumal rek léegi sénégalais ñoom est-ce que ñii nawloo nañu leen yéen dafa ñaaw la ñaaw lu ñoom étudiant doomu Sénégal ya nekk Chine mooy bëgg a ñib waaw président Macky leen xalaa ma ndir bàjjo xalaa xalaa du ngeen fi ñëw mënuma leen a andi ba tax kenn ci yaayu étudiants yi na président li nga wax noonu fa mel ne rek balu fetal nga ma tiire ci xol lan moo tax munoo andi suñ doom yi xam nañ lu ñu naqari de tas nga suñ yaakaar kàddoom yaa ngi ci l'observateur enquête yéen a kaay na ko pourtant réewum Maroc réewum Tunisie Algérie ñoom seen doom ya nekk Chine jëli leen ba yóbbu leen ndax jàngoro ñaari ñoo lànk ñoo a kaay ñoo bañ na duñu wuy ji njiitere Macky Sall ba tax maam Cheikh Seck ak ñam àndal taxawal ñoo lànk bu bees tàq tuddee ko ñoo lànk authentique ne nañ noppi ngir dem toog ak njiitere Macky Sall ci lu amul benn condition les écoles yéen a kaay na xanaa fi mu toll ni ñuy dee nekkul askan wi la ñuy xeexal wala wàññi courant bi su fekkee ñoo bokk bëgg-bëgg lan moo tax ñu xar ñaar le soleil yéen a kaay di ñu xamal tey ne réewum Sénégal gàcce ngaalaama docteur yi yëngatu ci wàllu opéré xolu doomu aadama fexe nañ ba Sénégal xam na juróom-ñaari milliards ci lu ñu yaxanal loo xam ne fañ ko waroon a fay dem bitim réew ñu faji leen loolu lu baax la li baaxul nag Sénégal mooy tey ci àllarba ji école yëpp ay geraw si du quotidien moo ñu xamal ne waa G7 ña ngay ñàkkante nguur gi ba léegi geraw total tey ci àllarba ji sàkk nguur gi baral loxom ci lijjanti seen i këyit waaye lañ moon ñu jëfee ko réew mi yéen a ay ne école bi am na ay problème waaye ndaw Sénégal tamit xam nañ problème de fi mu toll ndaw ña xamuñu xëy liggéey moo xamul ci réew mi xanaa xëy di compte poti lamp ngay jàng ba yëy këyit di taxawaalu jàng métier ba tëdd ci suuf doo xam foo ko liggéeyee bun Abdallah jonn ne hëy d'accord ma ak yéen de Sénégal am na liggéey problème bi kay mooy ndaw ñu ñu tàggat bañ mën a liggéey liggéey yooyu moo fi amut yéen a kaay bi direct news ne Sénégal kay fañ ko war a ndëpp ndax li fi nekk fi mu toll ni du jàmm de ayaw seetal fitna rey nañ ko agressé nañ ko rendi nañ ko rekk ngay dégg fi mu toll nii rey gi bari na yéen a kaay bi nag na foogu leen ne war nañoo dellu ci jikko yaraat xale yi waaye tamit andi fi peine de mort ku rey nit ñu rey la su ko defee kenn dootu rayati ndax dee kenn ñemewut ko source ay yéen a kaay di ñu xamal ñaari xale yu xam juróomi at yu faatu ci ak lakk ca Touba allah ñaari gone ñoo bokk genn ak baay musiba baa nga amee ca quartier guy seew libération moom di ñu xamal nga xale bu jigéen bi ñu fi rayoon rey gu ñaaw ga juróom benn fukki paaka ak ñeent lañ ko bojjoon ci biir bi njóoba sekk dëkkoon caaro yi takk deree seen enquête ba joxe nañu ay xibaar de ayaw seet tal ndekete yoo xale bu jigéen bi benn faram bu ñuy wax Aliou to moo ko rey ñeent nag ca ña ko jàppale woon ca rey ga jàpp nañ leen ba tëj leen kaso li tax mu rey xale bu jigéen bi bëggante woon mooy ne dafa dem ba yëg ne njóoba fa hëmb ba am juróom benn weer te moom ëmbalut ko keneen moo ko ëmbal bëgg bi mu bëgg ndaw si nag nee na mënta muñ keneen di ko ëmbal xol bu naqarek fiiraangeek soxor tax paaka yi mu jam ko ca biir ba ngir ëmb ba yàqu waa ma ne ana yow ana du jàkk du église doo sama jabar bu keneen ëmbalee ma bàyyi la fa seeti waaye di la rey xam ne loolu ñaaw na man xaw ma bu doon sa jabar nooy def